asalaamaaleykum mbokk internet yi safoo seen chaîne bii di KSTV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara tey nag boo leen gisee fii ñu taxaw ngeen xam ne ñu ngi fii ci Sorano euh, ngir teewee bés bu mag bi nga xamante ni euh, ki koy amal mu nekk di Abdou Aziz Diop kooku di Abdou Aziz Diop chanteur euh, musique afro arabe nekk nag di fête li nga xamante ni moo di anniversaire am moo tax KSTV daal di ñëw rek teew ci bis bi fas yéene leen indi lépp li nga xamante ni incha allah fii lay xewee ci loolu xam ngeen nag Abdou Aziz Diop dafa jël bis bi daal di koy tuddee ka nga xamante ni dafa sori si ñun tuddee ko ki nga xamante ni moo di maram jaxatee soxna fay xaritu baayam nekk directrice su KSTV fay Biram Penda Wagan nee naa la yow moom loolu waaye tuddee xam nga ni KSTV da ciy daal di saf sàpp moo suñu teewaay kon xam ngeen ni bis bi tey dafa nar a daw me ci loolu xam ngeen ni fii incha allah dara du leen fi ump dañuy daal di dugg ci biir rek waaye laataa ñuy dugg ci biir nañ leen fi jëlal quelques intervenants xool leen la ñoom seen teewaay ci bis bi mbokki internet yi léegi léegi lay doon incha allah. salaamaaleykum. salaam. ñu ngi lay nuyu di la ziar. Ah, di fay bu baax tur bi. maa ngi tudd Adja Sey Diop. Sey la première dame ya tey yow lan nga ci bis. waaw ah, bis bi de wax dëgg yàlla moom man moom euh, li ma si doon bari na moom waaw li ma si doon bari na torop wax dëgg yàlla wax gi nag moom xaw ma koo kii daal. wax Abdou Aziz ci ah, bisam bi. moom ñaan rek ñaan rek hmm, moom moom ñaan rek man daal dama koy ñaanal rek waaw réussite totale loolu daal laa koy ñaanal. macha allah madame première dame ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu gis ko noonu madame la première dame di dugg si. salaamaaleykum ça va. ça va yéen. delloo ziar bu wér. ñoo fay tudd. Euh, soxna Fatou Biram Penda Waagaan macha allah sant bi neex na euh, tey sa taxawaay ci bis bi. waaw xanaa ñëw rek jàppale si suñu mag suñu xarit suñu ndaanaan muy Abdou Aziz Diop mu nekk mag ci man daf ma rakk mu nekk ku baax nekk ku oyof nekk ku bëgg li muy def kon bu wootee du ñu def lu dul rek bàyyi lépp. ñoo ànd ak moom taxaw ko ci bés bi di ko ñaanal yàlla may ci ndam waaye di ko ci ñaanal rek lépp luñ ci séntu rek yal ko yàlla defal lu sut njottam incha allah te mu doon njig njaay njig laayam incha allah. kooku Amin yaa mu ngi noonu Abdou Aziz. ñaata. lii 2 millions la. 2 millions 400 mille la lii ngeen di gis nii. lii pour tonton Aziz Diop kese la du pour keneen. man man du ma ci sama door caay laa ci mbubu laa grand bubu laaj kooku suñu ustaas la suñu nit la kooku ñun ñoo ko bëgg te moom moo ñu yar ñun ñii ngay gis ñëpp moo ñu yar macha allah teg ñu si yoon teg ñu si code waaw ñu dañuy doxoñ ñu ñuy joxoñ macha allah ku ñu xoolee xam nañ njaboot loo waaw di ko ñaana bés bi commencé si bisimilahi rahmaani rahim jeexalee alhamdulilahi rabbil alamin kii 2 millions la pour tonton Aziz la ñun ragaluñ loolu ca 2 millions bala <laughs> jaajëfal nañ la amis téléspectateurs de la KSTV yéen a ngi toujours sur la chaîne KSTV ñu ngi nii nag ci Sorano comme ni ma leen koy waxee woon événement bi nga xamante Abdou Aziz Diop anniversaire am mu di ko fêté tey jii nii waaye tamit tudd ka nga xamante ni dafa sori ci nga xamante ni ñoo nekk KSTV directrice su KSTV soxna Faye xaritu baayam madame Diakhaté ci loolu damay dalal ki nga xamante ni rek ci famille Diakhaté la daal di koy nuyu ziar ko mu wax ma taxawaayam ci bis bi tey sëriñ bi maa ngi lay nuyu. Ah, kon maa ngi lay nuyu. maa ngi lay noo def nga baal ñu wax ñu maa ngi tudd Birama Diakhaté nekk mag si monsieur Diakhaté bu madame kii Diakhaté bu nee Soxna fay macha mu ngi noonu chéri madam jaxate lay doon tey jii sa taxawaay ci bés bi noo ngay jàppate li ngay jàppalee madame Faye waaw madame Faye euh, madame madame madame Diakhaté di mooy suñu suñu soxna su baax la donc moom bu ñu ko defee marraine rafet na euh, waa kër Pape Bouba Boubacar Jaxate ñëpp def délégation ñëw nekk si ginnaawam pour euh, jàppale ko daal waaw ndax moom vraiment ku baax la te ji nañu loolu moom ak ay magam ak ñëpp ak macha allah ak ay waajuram waaw kon nag bis bi moom duñ ci duñ ci des daal duñ ci des ginnaaw ñun ñëpp dañuy toog rek jàppale ko ba mu jeex incha allah. macha allah loolu am na solo bu baax a baax mu nekk ñi nga xamante ni mooy la famille Jaxate euh, daal di ñëw rek fas yéene jàppale ki nga xamante ni moo di Soxna Faye xaritu baayam. waaw waaw kii mooy Nabou Faye euh, rakku madame Jaxate daal di ñëw nag teewal ko ci bis bi Nabou ñu lay nuyu. maa leen di fay. looy looy wax ci bis bi nga xamante ni sa mag lañ ko tuddee. xanaa kontaan rek. Uh-huh. tant que moom mënul ñëw ma ne xaar ñu ñëw kon ñu représenté ko si bësam bi rek. bañ mu ñaaw daal waaw. kon dama kaa xeeb sax lu ma def nii bu baax. macha allah bu nee na da koo xeeb noonu. mbokk internetu KSTV ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moo di monsieur Diakhaté dama koy bàyyi rek moom tamit mu daal di nuyoog mbokk internet yi monsieur Diakhaté waaw maa leen di fay soxna si. yaa Sofiatou. tey nga daal di ñëw rek teewal madame ci bis bi tey jii looy wax ci bis bi. kontaan kontaan. kontaan encore une fois kontaan ndax cër lañ ko jox cër boo xamante nii danoo romb ay sénégalais yu bari ay sénégalais yu bari ñëw jox ko ko donc bu ma ko bàyyi moom rek day métti moo tax man ko toogal xaar moo ma dem gérer lépp waaw ma nag <laughs> nee ma kon la rek nga daal di yegg ci waaw waaw waaw waaw mais oui après grand ba macha allah li mu sañse moo am jom moo tax faw ma jël ko euh, soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay tur bi naka la. Titi Fall la madame Pen waaw. Fall ñu ngi may wax ne yaa ngi jóge ba Guinée. waaw maa ngi jóge ba Conakry nag ndax bés bi waaw ndax bés bi bi tuutiwul te li meex si bés mooy bés bi ñor na ma sama nijaay boo xamante ne macha allah laftet yëg ñu fulaal ñu faadeel ñu. moo tax nag ma daal di la ma téewoon yëpp ma daal di koy bàyyi daal di ñëw loolu la macha allah kontaan nañ Aziz nag moom ñu ngi koy gërëm di ko sant ñun jarbaatam yépp parce que nijaay la boo xamante ne il est exemplaire amul problème am na yar am na teggin jox nañu cër fonk nañu waaw waaw loolu moom am na ci moom moom waa daa ko ba ci kanam ci biir ay daaq <laughs> salaamaaleykum soxna si. ça va na def ça va ñu ngi la koy delloo bu baax man la soxna Mimi Diop. Abdou Aziz suñu rakk la suñu xarit la suñu lépp la ndax ñoo bokk yëpp ñu ñoy waa Dakar ville xam nga julli jëdit mooy Dakar ville rek moo tax ñu def suñu délégation nii rek ñëw wuyu si ka <laughs> waaw dañ koy ñaanal yàlla rek. mu commencé ak bisimilah rahmaani rahim àggale ak alhamdulilah rabbil mu ànd ak wér ànd ak gudd fan ànd fekk egtal bégal ñëpp daal incha allah. jërëjëf tata <laughs> mbokku internet KS TV ñi ngeen di gis ñu dugg nag ñoo nekkoon nga xamante ni mooy orchestre afro musique afro arabe bi nga xamante ni moo nekkoon fële ca Dakar ñii di dugg si ñoom ñoo fa nekkoon. def ñu ngi leen delloo ziar ba man maa ngi tudd Idrissa Sarr waaw nekkoon responsable troupe bu Dakar ville bu daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaati ah te yaakaar naa ay maam lañu waaw moo tax nag sunuy sunuy sunuy doom sunuy wëllëre di juulul jadid juulul jadid di Dakar ville Dakar ville di juulul jadid moo tax tey en franchissant un peu les portes de on a les frémissements parce que quand on était sur scène Abdou Aziz doon tooñ na ma. fàttali waaw ah, fàttali. waaye nag euh, su fi talent bi nekkee yéene bi nekk fii am na yu bëri nag yoo xam ne il faut laisser à la relève et on vient en conseiller on vient en support parce que tamit l'appel est toujours là tey la gën a actuel pour que nit ñi di jël li nga xam ni kilifa gi génnee na ko à travers toutes les dimensions sportives culturelles et économiques. qu'on soit les ambassadeurs pour que ñëpp mën ci gis seen bop partagé ko moo tax yeneen ñi ngi leen di sant ah, di leen gërëm bu baax a baax a baax kontaan nañ bu baax. merci beaucoup tonton jërëjëf merci beaucoup je en prie. merci. <laughs> salaamaaleykum. salaam namu naa leen. ñu ngi maa ngi leen ziar bu baax. man nag maay umul fanaanin. umul fanaanin. umul fanaanin sa taxawaay ci bis. xanaa di ci bëgg ci sama doom ji Abdou Aziz. mu jël bis bu toll nii tuddee ma ko te wax dëgg yàlla mënoon naa seeti ñu ma gën a ci riche waaye nag gis yaayam ji oyof ji rek ni ko yaa moom bis bi ama jéem lu ma man rek te ñëw waaw loolu rek laa gis lan nga koy waxal ci di ñaan yàlla ñu dugg ci bis bismillahi rahmaani rahim ngeen ci alhamdulilahi rabil alamin lépp lu ci am rek yàlla ñuy wërsëgam jaay na Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf <laughs> <laughs> Eh, ndax nu kazalika ñu ngi nangu ziar madame Diallo Khady Fall. Diallo Khady Fall tey sa teewaay fi en fait xam naa ne teewaay bu double la ndax yàlla dafa def eh, ci kër gi la bokk bokk ci basan gi war fee teew à notre propre nom mais tombé gi suñu honorable député Mbose Guiro waroon na ñëw ànd ak ñun far mu am gant de dernière minute. am na solo tey lan ngeen di wax Abdou Aziz ci bésam bi. ah xanaa di ko wax ni ko anglais di waxee rek congratulation ah di ko sant di ñaan yàlla lii mu di ko def di ko def di ko perpétuer ba ñeneen ak ñeneen macha allah di ko fekkee te yàlla dina ko ko defal ndax rafet nañ ci njort yàlla na yàlla barkeel. Ah, yow tata yow macha allah xanaa di dolli sant yàlla rek diñ ko ñaanal mu yàgg di ko def parce que am na loo xam ne soo ko dee def benn yoon mu jig la da nga ko da ngay yéene mu sax ba ba ngay màgget ak moom incha allah te muy gën a barkeel ndax Abdou Aziz moom waxuma dara waaye yar gi yar gi rek mën na ko may lu ne li si des nag yàlla na gën a barkeel loolu la ñuy ñaan yàlla. mais tata maa ngi leen di remercier bu baax a baax ba ci kanam incha allah. ñu ngi jaajëfal Abdou Aziz bu baax a baax di wane nii am nañ mbégte bu baax ci moom bu wootee ñëpp war a ñëw ndaanaan la ndaanaan a woote te ay ndaanaan ñoo ko fekk si. muy waa Carrefour des animateurs waa Amas tous les animateurs et les animatrices daal macha allah waaw bés bee ko jar <laughs> Abdou Aziz Diop ku baax la ku bëgg nit ñi la ndax nit moom mën nga woote bés waaye mun nga luyee siis mais mënoo luyee nit ñi xëy na mbaaxam ak oyofam ak yëg-yëgam ci nit ñi moo tax nit ñi yëpp bàbbeeku tey waajal la 5 juin te yaakaar naa ne tey dinañ fi gis loo xamante ne lu doy waar la macha allah. <laughs> dafa nekk nga xamante ni baax gi nga wax ci moom dafay dafa nekk lu am en fait man xam naa ci dara dafa baax oyof na euh, loolu yëpp daal dañ ko koy sante bu baax a baax nga baal ma fàttali. Fatima Sall Almadina FM bu Dakar. <laughs> Thank you. Amin. يوم yàlla barkeel Abdoul Aziz ah, lekkam mu lew la lool doomu jóg ndax lii yëpp macha allah sa taxawaay la kon nag yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla barkeel sëriñ Babacar Sarr ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi sant Cheikh Ahmed Tidiane Sarr bu baax tabarakallahu di leen yóbbante nuyoo ci kilifa gi di leen wax ne Abdoul Aziz nee na bég na loolu kon nag bés bi yëpp moom lañ koy delloo bés bi yëpp moom mooy borom Abdoul Aziz lan mooy doon kàddu yi. nee na madame Seck sa fay xarit waaye bu may wax naa ci boole madame Diakhaté donc borom këram nee na naa ci boole madame Diakhaté donc madame Diakhaté Aïcha monsieur Diakhaté donc je te donne la parole. alhamdulilah ñu ngi nuyu ñeen ñëpp si nekk si turam ak santam teewal fii ki nga xamante ne mooy soxna Fatou Faye xaritu baayam madame Diakhaté waaw macha allah muy xaritu Abdou Aziz vraiment ne kontaan na lool marraine bi ñu ngi ànd ak délégation bu yàng bi ki ko jiite muy papam di père Ousmane macha allah ànd ak jëkkëram yi macha allah ak euh, jëkkëram a ngi nii tamit si wet bi borom kër gi nee na <laughs> monsieur Diakhaté donc daal soxna moo ñu yóbbante woon nee kontaan na lool macha allah bu sañoon nag teewee nii waaye xam nga ni mu demee donc mu ngi lay accompagner saa su nekk vraiment di la ñaanal réussite. yeneen ak yeneen ak yeneen topp si incha allah bii nag moom enveloppe euh, boo xamante ne la moo ne ñu jox la ko daal kontaan na lool si cër bi macha allah. bon kër gi nag naa leen madame Diakhaté soxna Faye xarit Mbaye. PDG KST ku internet yi safoo seen chaîne bii di KSTV yi amaat mbégte bu baax a baax a baax xanaa jaajëfal leen rek gis ngeen lii nga xamante ni moom lañ leen indiloon fii ci Sorano ak ki nga xamante ni moo di Abdou Aziz Diop woykat bii di Euh, musique afro arabe mu anniversaire bi nag macha allah gis ngeen fees na dell neexoon na trop ba dee euh, jaajëfal leen rek KSTV nii la demee à chaque fois ak événement yi nga xamante ni mu ngi xew nii lañ leen koy indilalee euh, daal leen di wane lépp li nga xamante ni bëgg ngeen ko xam wala bëgg ngeen ko gis mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax jox leen dig daje rek beneen yoon incha allah ak yeneen i événement